fàttali weer yi ci ginnaaw am na ay mesures yu ñu jëloon yoo xam ne pour mbas mi ñëwoon la ñu mën ko dékku la mesures yooyu aussi biñ ko jëlee permettre nañu xëy na suñu réew bañ a am jafe-jafe yi nga xam ne réew yu bari am nañ ko mais également mesures yi dafa am lu mu gàllankoor lu bari surtout ci wàllu koom ndax euh, boo seetloo ci secteur bi ñu ne muy secteur microfinance ak économie sociale et solidaire am na liggéey yu bari yoo xam ne dafa taxaw te secteur bi ñu ne lépp lu jëm ci wàllu lebal xaalis ak fay xaalis moom moom moom moo ci ne donc euh, ñooñu nga xam ne ñooy def loolu liggéey boobu ñu koy wax SFD mooy institution de microfinance yi bi mbas mi ñu dégg appel bi nga xam ne président de la république def na ko ci kenn ku nekk na indi ci yéwénam ak ci mën-mënam ak ci kàttanam mu am lu mu bàyyi ci lu mu waroon am ngir euh, ñu mën a dégg mbas mi ñoom aussi dañ ko def ndax bu ngeen fàttalikoo euh, këyit acte xaatim bi njëkk bi président def mooy ordonnance boo xam ne day sàmm emploi maanaam képp ku am sa liggéey wala nga nekk si di jóge ko daanu xaatim na ordonnance boo xam ne war na mën a sécuriser loolu bi mu ko defee aussi waa APSFD malgré que am na euh, ci wàllu koom euh, ressources yu bari yoo xam ne gàllankoor na seen liggéey terewul def nañu loolu moo tax ba tey suñu demee ba ne léegi li ñu fi ñu toll mooy nañu def relance économique parce que nit ñi mun nañu continuer rek ci mesure yi ñu nekkoon day jaadu ñun ñi seq secteur microfinance xam secteur microfinance lan mooy pàccam ci wàllu économie ci wàllu koom réew mi euh, ñu toog ñu waxtaan ci ñoom li ñu jot a dund ci ñett ñeenti weer yi ñu dem ci li ñu gis ne euh, état bi def na ko mais faw mu dolli yeneen jéego pour secteur bi gën a mën a taxaw ndax jafe-jafe yi moom ñun ànd nañ ko man ànd naa ko gis ak ñoom que ne am na jafe-jafe mais li tax ñu war a gën a jàpp secteur microfinance gën ko mën a méngaleel ak nit ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo secteur bi ñu ngi koy xaar mooy ñi tënku ci secteur microfinance dafa bari te loolu mooy Sénégal lu tolloog ñetti million ak genn wàllu nit ñi nga xam ne ñi ngi toog ci boppu koñ yi ñi ngi ci ruq yi ñi ngi ci ruqaat yi di jëfandikoo institution de microfinance yi war nañu sécuriser mécanisme secteur microfinance yi ba nga xam ne liggéey bi ñuy def dinañ ko mën a continuer looloo tax euh, suñu daje bi ak ñoom am solo ñu wax ñu nag jafe-jafe yi nga xam ne donte ñu ngi ko doon dundu Euh, dékku nañ ko ba tey ñuy wax waxu relance économique nag ñu war a mën a toog saytu loolu ban taxawaay la ci nguur gi war a am donc euh, dinañu teg nañu comité technique boo xam ne waa ministère bi ak ñoom des directeurs généraux yi nekk ci institution yi ñoo koy séq su ko defee ñu waxtaan xool yan taxawaay la état bi war a am pour que euh, secteur institution microfinance yi ñu gën ko consolider mais surtout ñu jox leen ay yoon yoo xam ne aussi liggéey bi ñuy def dina gën a mën a répondre attente seen bénéficiaires yi